dans quelques instants des ko exactement au cours euh, de 23 heures le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina daal di euh, déclaration euh, de presse am waxtaan ak li nga xam ne que si mu ce sera une déclaration boo xam itam sous forme d'un discours assez courte exactement alors naka na daal di la sortie justement de Bassirou Diomaye Diakhar euh, peut-être chaque semaine il euh, faut sortir peut-être ni ngi ay kàddu si ay rencontre daal di koy que modi reprendre exactement alors ñi analyser trop de communication est-ce que non la gissé concrètement wa bon ça dépend si li mu nar a fësal ak li mu nar a wax hmm. waaw sans dépend parce que xamuñu li mu nar a wax lan la en réalité en tout cas bu féké lu jëm ci espace politique bi la mom japp naa ni waaw bu dee daal lu ñeel wàllum espace politique bi. man pour man jaru ko en ce sens là parce que actuellement li fi nekk nii c'est de la politique et bu ñu demee ci politique mu jàpp naa ne il faut laisser le premier ministre il va gérer la la l'activité politique kon nag jàpp naa ni boobu muytul bon peut-être ñu xaar ko ci affaire bu Bakel bi ah. loolu am am na communication. waaw waaw mais c'est une situation catastrophique. li mm. xew et ça menace d'autres d'autres mm. d'autres contrées tey Saint-Louis par exemple certaines zones sont tellement menacées par rapport à crues yi nga xamante ni mi ngi am si fleuve bi loolu ñi nga xamante ni c'est des services euh, en la matière joxe nañ seen xalaat seen point de vue parce que bu dul loolu fàllu en réalité ci la la war a wax mm. parce que li fi xewaat yépp mooy affaire Bougane bi je pense que président de la république yoonam nekku ci war a bu ci mën a wax hein parce que c'était c'est un dossier pendant li fi xewaat gis nga ko c'est l'affaire de Ameth loolu président xam naa ni moom du ci dugg du ci wax Hein, affaire euh, parce que des domaines exclusivement dédiés à la justice justice mm. mu parce que mm. ñom ñoy ñep ku justice nga amal affaire mm. aussi nomination des détails nomination la nomination dafa am information bi euh, que Sonko corriger message mm-hmm. donc Ousmane réagit sur la nomination de sam les mesures correctives idoines sont apportées exactement les mesures correctives. c'est-à-dire. Hmm, ok. donc euh, Ousmane Sonko euh, exactement euh, chers militants et sympathisants. Euh, nous accusons réception des multiples expressions de notre indignation mm. suite à une nomination intervenue récemment en tant que le président euh, du parti. Euh, je me réjouis de votre vigilance qui témoigne de la maturité de notre démocratie interne et prend sa source de ce douloureux souvenir des épreuves auxquelles nous avons été soumis pour en arriver là où Dieu a bien voulu. Soyez convaincus que ce souvenir est plus vivant et tenace en nous. Euh, que chacun de vous, euh, je puis vous euh, assurer que le président Jomaï, qui a certainement pris la décision, qui a certainement pris la décision justement sur proposition alliée, n'avait aucune connaissance des faits dénoncés. Je rappelle euh, la position historique de notre parti et reste ouvert à collaborer avec tous les Sénégalais euh, convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre gel excessif dans l'intimité euh, contre le parti, ses leaders et ses membres. je ne doute pas que les mesures correctives idoines sont apportées au plus vite chers militants et sympathisants, à 48 heures du début de la campagne euh, pour les élections législatives, je vous demande à tous de rester mobilisés et concentrés pour, pour garantir euh, justement une victoire écrasante et éclatante euh, et, une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024 à laisser entendre qu'il a de l'Ola nee na jot na nag li Sénégalais yi daal di li nga xam ne que moo di diral si kaw ki nga xam ne que moo di Samba Ndiaye euh, loolu lépp nag dina ko boole jébbal ko ki nga xam ne que moo di le président Bassirou Diomaye moom nag mooy xool exactement ana nag ana ana lan la si daal décidé jàpp na ni ak njottam bu rafet que ni Diomaye du jël benn ko euh, décision bu défavorable bu jëmale si parti moom itam mi ngi ñaan sëriñ. waaw euh, waaw waaw xam nga sax li ma gën a neex. ci ci li nga doon lii léegi. Hmm. mooy fi mu ne je puis hein. hmm. vous assurer que le président Diomaye. Hmm qui a certainement pris la décision sur li ñu doon waxtaan sur proposition alliée n'a aucune connaissance des faits déconnectés xam nga lii wax nañ ko sànq ma le président day nommé ba nommé ko xam sax du ko xam hmm. parce que tout simplement y a un allié boo xamante ni mën na def proposition bi léegi nag si biir ministère bi nga xamante ni fa la fa la fa la kii bi jógee fa la proposition bi jógee ñoo ñoo war def kii interne bi hmm. ah, c'est-à-dire li nga wax euh, enquête de moralité interne bi léegi nak président de la République buñ ko proposé parce que ñi mu jàpp di liguel japp nañ ce sont des hommes de confiance ken képp kuñ ko andi rek la ci war yëpp def nañ ko kon japp naa ni noonu la mbir mu demee et le que le plus important mooy euh, Ousmane Sonko bon limu def amna solo parce que wax nañ ko fi légui c'est une démocratie interne les citoyens tay jaadu parce que fiñu jaar ak projet bi jaar fek Sonko nit jug feulé ko xamante ni mus ci woon ànd mus bëgg wax lolu c'est une démocratie mm. donc nag jàpp jàpp naa ne li mu wax Pastef daañ ko bàyyi xel. parce que ah. tey ñi gën a màgg ci Pastef Fallu. Hmm. ñoo génn. ñoom Waly Diouf Bodian. Abbas Fall. Abbas Fall. Guy Marius Sagna Serigne Gueye Diop Waly Waly Bodian Diouf Serigne hmm. Gueye Diop. may mun a bu ponkal yëpp a génn. kon nga xam ni affaire bi am na fu mu am am na fu am na foo xamante ni yegg na fa quoi en réalité. Hmm. voilà maintenant nag comme que Ousmane Sonko wax na te li ci war yëpp dinañ ko ci def attendons de voir la suite des événements. alors attendons de voir exactement la suite des événements ma qui n'a ki que moo Ousmane Sonko ñaan na mais c'est aussi ñi euh, le fait que peut-être Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, su surseoiré sa décision sur Samba Ndiaye dafay euh, perdre exactement li nga xam ne que moo di kàddoom loolu itam naka na ko daal perdre kàddu perdre comment. le fait que benn pression abattre si Mom, pousser ko pour mu dàq ki n'a xam que moo Samba. Oui, mais mais man pour man biri non la wara a mën fallu hmm. président bu juum jël une décision. mais président su juumee tamit dañuy japp ni juumul. la hmm. dañuy japp ni conseil constitutionnel ñoo yem. kan. waaw ah, quelque soit ses déedéet yemuñu de soit ses décisions. waaw. Euh, le président n'est pas responsable. wa wa légui xam nga conseil constitutionnel conseil constitutionnel. constitution bi mo ne les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. loolu di ko loo amee ko wax mais amul fenn ci constitution Sénégal fu ñu ne la les décisions du président de la République ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. si mëna na see dellu mais. Ah. mais aux yeux de certains est-ce que du japp ni président dafa ñàkk li nga xam que modi di concrètement. nit ñi lu wax euh lu bëgg def ñu ngi suuf si ànduma mu dellu non non lool du wala kon partem non non lool du du xam nga wañ nan ko waxee si wala. Hmm, tox du peut-être weñ loxoom. non non rek ki sa cadeau lan baña sam sa cadeau waaw bañ a sa cadeau fallu baña sam sa cadeau moy wax loo deful mais fi wax loo defal amu fi président namena ñako porter au pouvoir majoritairement nee ko sa nommé loolu kay c'est une démocratie lolou c'est à saluer mm. le président de la république li nga dogal ñu ci mais c'est la démocratie ak courage un peuple courageux bu taxaw ne ko ñu ci li nga def ba pare yemuñu foofu de newuñu ko ñu ci li nga def rek yem fa mais dañ ko andil ay fait ay raisons ay motifs yu koy wone andu ñu ci décision bi parce que Bassirou Diomaye Faye ba mu toogee boobu léegi mi ngi def ay nomination mi ngi def ay nomination mais da daa gis benn nomination bu ci amee vague vague vague de contestation bi amul. Ah, à part Asma Khadija. à part non à part Asma Khadija bokkul xam nga Asma Khadija président la may woo. Ah. Ah. kooku président moom ça n'a rien à voir ak président kooku Pape Alé la. Hmm. une boîte la à part entière kooku du décret du arrêté nomination la rek xool nit ki nii nangam nangam ñëw liggéey kooku bokkul. Hmm. mais bi c'est le président de la république. président nag moo yilif ñëpp yow mii tey Fall nañu waxante dëgg nag sa kër gee nga dëkk sa papa la yilif mm. mais am na loom boo si àndul ak moom àndoo seeg moom mu xam ne li nga wax dëgg la dafay dellu ginnaaw bu dee nit ku baax mu xam ne li nga wax dëgg la te mooy li cohérent juum na mais day dellu ginnaaw. tout bon parent doit fonctionner de cette façon là. nga ñi jàpp ni aussi euh, sàmm dafa war a teggi loxoom si ndam li exactement. parce que tout votre day dem donc ce serait bon pour lui mieux pour lui de démissionner euh, mu bind histoire Serigne loolu itam Samba. waaw Fallou daal Fallou Fallou koy Samba daal bu amoon moralité mom. dem mais mais xool bag de contestation bi yëpp c'est-à-dire même bu nekkee foofu mais mais du liggéey du am du am quoi xel mu dal. Mm. xel mu dal ay liggéey nag. xel mu dal muy liggéey Fallou demal demal demal demal ñëpp naa la demal boo amee moralité demal bo amee lii demal saay nag fàllu am na nit foo xamante ni boo fa jaaree moom nag wax dëgg yàlla waratoo bokk ak moom ndap la muy lekkee. alors c'est clair. waaw. nii hmm, noonu. oui c'est clair euh, am na solo bu baax a baax par rapport ak euh, mbir bu ni mel donc ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko euh, réagir na exactement que ni ay mesures correctives na xaar ne ko si suite ak nomination bu ki nga xam ne que moo di Samba poste li nga xam ne que moo di SN alors ñu daal di ñëw itam si leneen ginnaaw loolu du côté de la régie Serigne.